wa ridwanillahi taala al akbar an al abdil xadim sayxina wa wasilatina wa xurrati aynina cheikhu ahmadu bamba xaadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki xasida 24 ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen bàllu aq di leen baal tey ñaan yàlla sunu borom mu boole na jéggal di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk di sahru ramadan di ñaan yàlla nangul ñu sunu koor te laqal ñu ko fi yàq eggul te ñu teewee ko ay at yu bare bare ci barke Serigne Touba ñoo ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daal yi ñëpp eh, tàmbale ci sëriñ sërif li nga xam ne mooy jëwrinu liggéey bi suñu jëlee nuyoo bi ak ziar bi jox ko mu jottali ñu ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di ziar bu baax baax baax ah, sama xarit sëriñ Pastef Njaay waaye sëriñ Aline Diop ah, ak sëriñ Moustapha Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ñépp rek ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax bu ñu limee dañu juum euh, seen mbokkum taalibe Modou Thiaré di fas yéene tàmbali euh, seen jotaay bi ñuy wax jotaayu xasida yi di fas yéene ànd ak yéen ay laabirante ci mbindum Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di ñaan yàlla suñu boroom mu defal ñu tawféex te defal ñu dégg ak topp ci barke Serigne Touba tomb bi ñu fas yéene waxtaani tey mooy jamono yi nga xam ne moom la sëriñ bi bind xasida yi ndax ku ne xam na ne dafa seddalikoo ci ay jamono waaye itam xeeti xasida yi itam incha allahu taala bu ñu ko waxtu may dinañ ci ñëw ndax xasida yi dafa bëri ay xeeti xasida yu bokkul mu mel ni euh, mbindum Sëriñ Tuubaa ci dafa seddalikoo ci ñaari xaaj muy xam ne dañ koy bind loo xam ne sëñ bi bind mu nekk way ak loo xam ne daf koy bind mu nekk wesar wesar nag mooy loo xam ne Eh, du lu way waaye da ngay ñëw rek di bind muy dem waaye nag mooy loo xam ne dafay tënku ci eh, fukki baxru ak juróom-benn yooyu nga xam ne moom lañu ñu miin eh, képp kuy way ak xasida faaw nga jëfandikoo ci benn mbindum Sëñ Tuubaa nag ñaari xeeti xaaj yooyu yëpp su ko defee nag loolu nga xam ne sëriñ bi def ko bind mu nekk way wala mu nekk waset lenn lu ci nekk rek am na ci loo xam ne sëñ bi def ko bind mu jëm ci yàlla suñ borom subhanahu wa ci loo xam ne sëñ bi def koo bind mu jëm ci yonent bi sallallahu taala alayhi ci jëmmam bi am ci loo xam ne sëñ bi def koo bind mu jëm ci diine bi mu jëm ci diine bi kon loolu mooy li nga xamante ne moo ëmb mbindum Serigne Touba euh, sëñ bi dafa bind loo xam ne dafa jëm ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala bind loo xam ne daf koo jagleel jëm yonente bi sallallahu alayhi wa bind loo xam ne daf koo jëmale ci ci diine bi bu dee li nga xam ne moom la bind mu jëm ci diine gi mooy li mu bindi di ci jàngale tawxid di ci jàngale fiq di ci jàngale tasawuf di ci yar taalibe yi di ci jàngal seen diine di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim loolu mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi bind mu jëm ci euh, diine mën nañ cee jël lu mel ni tasawadu sixaar tasawadu subaan euh, jawharu nafis masalikul jinaan ak yu demee noonu bu dee lim bind mu jëm ci suñu borom subhanahu wa taala loolu itam ñaari xaaj la mooy lim bind euh, di ko sant ak lim bind di ci tudd yàlla mooy azikru wa euh, bu dee lim bind jëm ko ci yonent bi sallallahu taala wa sallam jagleel ko ko ci jëmmum ji tedd ja loolu tamit ñaari xaaj la mooy li bind di ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak li mu bind di ci julli ci moom day mel ni sëriñ bi boole na yooyu yëpp tënk ko ci benn bayit muy nawaytu dawaama zikri wa shukri xaadiman li xayril wara nimal xasiidul muzayin nawaytu dawaama zikri wa shukri ak zikri wa sukri loolu yàlla suñu borom nag dafay yóbbaale li nga xam ne daf ko bind mu dem ci tuub ci yàlla jégalu yàlla ñaan yàlla loolu lépp zikar la comme loolu lépp day dugg ci zikar sant yàlla itam euh, kon ñaar yooyu mooy yi nga xam ne si bi daf koo bind mu jëm ci yàlla ak zikri wa sukri waaye xaadiman li xayril wara biñ bind jagleel ko yonente bi dafa aju ci ñaari euh, xaaj bu dee lu bind jagleel ko yonente bi sallallahu alayhi wa moom itam ñaari xaaj la kom ni ko waxe mooy lim bind di ko tagg ak lim bind di julli ci moom mooy la muy wax ci xasida ak mawaahibu naafi salaatu sitta bi madhi sitta dafa mel ni dafay jubloo xam ne foofu ne euh, juróom benn weer yu njëkk ci at mi def ci daan tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-benni weer yu mujj ci at mi ci julli ci moom daa mel ni ak dundam noonu la ko euh, defoon te loolu kon day mel ni dundam dundam bi lépp rek def ko fa jébbal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax wax ne lil Mustafa kulliyati kulla sana madhan salatan wa hababil boo demee ci xasiida mafatihul bisril kubra Euh, di ko gis muy wax ne madaxtu xayral xalqi min muharrami ilantisaafil aami zaata karumi mu ne di ko tàmbalee ci muharram di tamxarit weer wu njëkk ci at mi jullit ñi ba ci jumaada saaniya maam koor mu ne juróom benn weer njëkk ci la doon tagg yonent bi euh, lahu salaati wa salaame min rajab li ni zil xijjati ni'mal muntajab di ko tàmbalee weeru rajab ba ci weeru zil xijja muy digg tabaski mu ci euh, tagg yonente bi sallallahu alayhi wa kon su ko defee jëmmi mbind mi ci boppam moom itam dafa seddalikoo ci ñetti étape maanaam ñetti jamono dafa am lu ñuy wax xablal xaybu ak fi zamanil xaybu ba ba'dal xaybu eh, li nga xam ne sëñ bi def koo bind lu jiitu muy dem ci géej gi loolu ab xaaj la ci jamono yi sëñ bi bind xasida yi li nga xam ne daf koo bind ci jamono yi tukki bi loolu itam ab xaaj la ci eh, jamono yu sëñ bi bind xasida yi eh, ñetteelu xaaj bi nag mooy li nga xam ne moom la bind ginnaaw bu mu ñibbisee ci tukki bi ba nekk gànnaar ba am fa ñaari at ñett ba na mu wuyjee boromam bi subhanahu wa taala bu dee xaaj bu njëkk bi dafa mel ni sëñ bi ne awalu mabtada bihi alxadimu bi man lahu taqdimu wa azhara alxidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi dafa mel ni siñ bi dafa wax ne lam njëkk a def rek mooy defa fab jëmmam bi tedd ja jébbal ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam taxalluqan bi man lahu taqdimu waaye def mel ni liggéey boobu nga xam ne moom la doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi dafa amoon ci atum assassin atum 1301 ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy 1883 ca Mbàkke Kajoor ci at moomu la bi amoon yéene liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dëgg-dëgg liggéey bi nag sëñ Touba nee na mi ngi ko tàmbali ci atum jay sasin mooy 1313 moo tax mu ne wa azharal xidmata ama jay sasi liggéey bi daal mi ngi ko fesal mi ngi ko feeñal mi ngi tàmbali ci atum jay sasi waaye wa qalbuhu admaraha min asasi xol bi ci atum asas la ko yéene woon kon day mel ni 1313 bi nga xamante ne si eh, sëñ bi tubaab yi ñëw nañu génne ko réewam mu taxaliko ak ay njabootam taxaliko ak ay taalibam taxaliko ak ay bokkam ci la lëggéeyal yonente bi sallallahu wa sallam nam ko bëggee woon ba taxoon mu doon wax ne man zanna annahu yaqumu abada yurdihi billazi ka xidmati bada na zannahu bi anniya alxadim bima wana an mislihi kullu xadim mu ne képp koo xamante ne yaakaar nga ne liggéeyal nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu nii li ma ko liggéeyal man Sëriñ Tuubaa maa ngi lay xamal ne sa njortu nax na la waaye maa ngi ko liggéeyal loo xam ne mbindeef masu ko ko liggéeyal ca ña fi jiitu woon te kenn masu ko ko defal ci ñi ma jàmmaloonteel te keneen dootu ko ko defal sama gannaaw kon liggéey boobu mbokk yi liggéey bu rëy la waaye 1883 ba 1893 mooy mille neuf cent mooy mille trois cent treize ba mille trois cent un ci gàddaay bi ba mille trois cent treize ba mille trois cent treize ci gàddaay bi mooy dëppoog mille huit cent quatre-vingt-trois ba mille huit cent quatre loolu mooy xaaj bu njëkk bi lu jiitu muy dem ci géej gi bu dee ñaareelu xaaj bi moo tàmbalee atum jay sasin ba ci atum jak sasin mooy jamono tukki bi loolu mu ngi toll ci fukki at euh, mooy ñaareelu étape bi moo tax sëñ bi euh, wax ni lillahi ma katabtuhu min jaysasi sasi li rasulihi li xatmi jaksasi Euh, mu ne li bindi tàmbalee ko ci atum jaysasin 1313 ba 1323 te mooy bi mu ñibbisee ba nekk gànnaar Mauritanie ba am fa ñaari at jàpp ñett mooy 1323 dëppoo 1880 maanaam 1895 ci la defoon tukki bi mooy tollook atum jay sasin ci gàddaay bi ba 1903 te mooy atum jak sasin euh, mooy 1903 kon diiru fukki at yooyu mooy li nga xam ne suñu def koo bind ci jamono yu tukki bi mu ne nag lillaahi ma katabtuhu min jay sasi wali rasuli la xat dak sasi loolu mu bind ci jamono tukki bi am na ci loo xam ne dafa jël ci yàlla am ci loo xam ne dafa jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax daan na wax ne li mu bind ci tukki bi dama ci doon jaamu yàlla doon ci lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ci jihaad ak tubaab yi moo tax daan na tere ku ko sotti mbaa mu di ko mu di ko bind wa bi zalika euh, satartuhu wa mana'tuhu bi naqlihi kon loolu ñaareelu xaaj la ci jamono yi sëñ bi bind xasida yi mooy li ko tàmbalee ba mille te mooy mille huit cent quatre demee ci tukki bi ba bu mu gisee ba nekk gànnaar ci ñaari at mu des ñetteelu jamono bi mooy li nga xamante ne moo tàmbalee ci daksasin ba ni mu wujjee boromam subhaanahu wa taala Euh, mooy 1904 ba 1927 1904 euh, ba 1927 bu dee ci atum gàddaay bi mooy tolloog 1324 ba moo tax sëñ bi wax ne minniya lillahi wa lil rasuli wa li zawil islaami wal qabuli min daksasin إلى دخول الجنة خطي بلا أذى وغير فتنة mu ne lim bind ci lim bind tàmbalee ko ci atum daksasin atum 1904 ba 1927 parce que dafa wax ne min daksasin ila duxulil janna min min daksasin min euh, trois cent vingt quatre boo ni mu tàbbee aljanna loolu la wax kon day mel ni mooy bu mu ñibbisee ba nekk gànnaar bi ko tàmbalee foofu ba ni mu wujjee boromam mu ne loolu nag mu bind am na ci loo xam ne dafa jën ci yàlla suñu borom mu bi sallallahu wa sallam wali zawil islaami am ci loo xam dafa jëm ci xeet yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu doon wax ne loolu mu mujj bind nag sun borom def na ci barke ba moo gëna a kawe ci bépp mbind budul dul alquran ak hadis rek loolu mooy li gëna gën kawe mu ne képp ku koy jàng lépp loo fas yàlla sun borom dem la ko defal kon loolu mooy ñetteelu jamono bi 1324 ci gàddaay bi ba 1346 ni sëñ bi wujjee boobam mooy dëppoog 1904 ba 1927 بهم su ko defee nag mu mel ni jamono ju njëkk ji nga xam ne moom lañ leen waxoon te mooy 1301 assassin ba jaay assassin 1301 ba 1313 sëñ bi amoon na ay jamono yoo xam ne dafa waxoon ne loolu suñu borom nangu ko euh, waaye nag nitu yàlla yi ñoom li ñuy wax li ñuy wax ne nanguwuñ ko loolu eh, ay jaamu yàlla yu kawe kawe kawe lay doon ci ñun ndax ñoom seen daraja dafay yéeg jamono ju nekk dañuy gën a xam seen borom su ko defee nag dañuy dem ba jàpp ne lañu fa ñu tolloon ci jamono yu yàggee dañu jàpp ne loolu eh, dañuy jàpp ne loolu daal xëy na jaamu yàlla goo xamante ne ni jaamu yàlla gu gu la ngir ne daraja yu kawe yi nga xamante ne foofu lañ toll moo tax waaye lu ñu nangulul Serigne Touba loolu ñun ay jëf yu réeree lay doon ci ñun su ko defee nag sëñ bi sax xam le woon na ne lim bind lépp yàlla nangul na ko ko xëy na ba muy wax lee dafa fekkoon suñ boroom xamal ko ne ba muy wax lee ne nanguluñ ko ko bu dafa fekkoon yàlla xamalagu ko ne li nga bind lépp nangul na ko ndax yaaman jamiha xidami taxab bala mboolem liggéey bi lépp suñu borom nangul na ko gis nga mu ne xabiltali min asasi li barsasi yow suñu borom nangul nga ma li ko tàmbalee ci atum asas mille trois cent un ba barsasi am na feneen fu mu waxee ne min asasin li barsasin xabilta xasaa idi kamaaluhu bajjalta am na feneen fu min assassin euh, rafaxa ma katabtuhu mu assassin munabbihan fi yi min hamsasin mu ne liñ bindoon ci atum mille trois cent un ba muy doog a tàmbali ba mille trois cent quarante cinq loolu lépp suñu borom yëkkati na ko xam nga suñu borom bala moo yëkkati sa bind daf la su la ko nangulee mu kawee ba nekk ci aras gis nga moo tax mu ne kitaabati lil arsi wal kursi rafaha man jaari bil kursi moo tax mu ne mi ngi bindoon ci atum mille huit cent quatre-vingt-trois ba mille neuf cent vingt-six Hamza Singh mooy mille neuf cent vingt-six gis nga kon mu ne loolu lépp suñu borom nangul naka ko waaye nag ñu ngi koy soog a xam ci atum mun na bi am fii rafahi min Hamza Singh ci mille neuf cent vingt-six te mille neuf cent vingt-sept ci la dem dëkkaale ji ak borom subhanahu wa taala kon mbindum sëñ Tuubaa li ma bëgg a wax rek mooy lépp la yàlla suñu borom nangu mbindum sëñ Tuubaa lépp la yàlla euh, barkeel mbindum sëñ Tuubaa lépp la yàlla nangu màggal ko kon xasida yi benn boo ciy jàng rek na nga koo sellal te jox ko war ma bi muy laaj su ko defee lépp loo ciy sàkku rek suñu borom bi subhaanahu wa taala daan ko defal ndax sëñ bi dafa waxoon ne saa boo leen di jàng sama xasida yi na ngeen ci fas lu leen soob su ngeen noppee suñu borom defal dañ ko incha allah kon su ko defee ñoo ngi yemandi foofu di leen jéggalu lépp lu ci jubadi rek wala lépp lu ci niru njuumte na ngeen ñu ko jéggal te xam ne suñu gàtti àll la ak suñu ñàkk xam waaye li ci jub ci tawfeex suñu borom la subhaanahu wa taala ñu ñaan yàlla mu defal ñu secret yi ak lanwaa rek asraar yi lépp rek ci lay Sëñ Tuubaa kon tomb boobu lañ leen andi loon tey euh, muy jamono yi sëñ bi bind xasida yi amoon nañ yéen sax dolli ci xeeti xasida yi waaye day mel ni loolu buñ fi duggee day day mel ni loolu day laaj jotaayu boppam boo xam ne jomb beneen yoon incha allah suñu ñëwee ñu euh, ànd ak yéen ci xeeti xasida yi comme ni ñu leen ko waxee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu liggéey bi bu baax a baax di ñaan suñu borom nangu ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. والنية جعلت خيرا من عمل وبالغداء نيته وسلم